bu len faté abonné ci sen sen YouTube Samsung TV jant bi leral aduna té activer cloche de notification bobé ngeen sen ci sen écran samsul huda amad afaaqi Allah samsul huda amad Samsung TV mooy suñu TV mooy suñu télé dinañ ko seetaan. Samsu TV ñooy suñu télé. Samsu TV mooy suñu télé. dinañ ko seetaan mooy suñu télé. Samsu TV mooy suñu télé dinañ ko seetaan. Samsu TV ñooy suñu télé. Samsu Samsu Samsu Samsu TV. Samsu TV la ñuy bégee ba aljana. ay waay di ko bégee waay ba aljana.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 والشمس وضحاها والقمر إذا طلاها والنبي إذا جلاها والليل إذا يصلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونسينا ما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد من سكاها وقد خاب من دساها كسبت ثمود بتقواها إسم لا أسقاها فقال رسول الله ناقة الله وسقياها الله لمن حمده الله ربنا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 وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يمكن ربك وترضى من ألم يجيك يتيم فأعوى ووجدنا ضالا فهدى ووجدنا عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تفكر وأما السائل فلا تفكر وأما بنعمة ربك فأحدث الله أكبر الله أكبر سمع الله الله ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله asalaamu aleykum asalaamu aleykum njàmbe bokk jullit yi catu bi rek noo euh, ngi jéglu ñëpp di jéggal ñëpp bi di ziar imam ratib sëriñ Cheikh waaye asan yàlla suñu borom bi yàgg la suñu mbay suñu jaamu yàlla yi yàlla yàlla mbay kon imam Lena, na asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu nee na dafa am lu tuuti lu ñuy jiital mooy seen teela ba sunu mbootu ak sekk moo di sëriñ mat la yàlla ko yàlla jagleel ñun ñëpp yoolu it al awalu ba ca jëkk yow yamuru alal mumini wala yakutubu alay sandun foofu yow idun vingt-quatre yi jullit bi ko dund ba mu jeex xalima ak bàkkaar dawul ci moom am na yoolu it yal nañ ko yàlla may ñaareel ba al yawma lasi yaxruju min ad-dunya bil imaani wa saadati wal xismati min kaydi seytaani xaw yawma it ku dugg àdduna am nga ak génn àdduna wala yàlla sutarale ngay dugg nga dugg àdduna ba génn àdduna sa pas-pasu gëm dëgër këng sa baati seede dëgër këng nga mucc ci pexe seytaane bésu eet la nun ñëpp yàlla na ko yàlla may ñetteel ba la si al yawma la si tujaawasu fi siraat wa yaminu min awli alxiyaamati wa yaxlisu min aydi alxusumati wa sabaniyati foofu yawma isu ñu ni ku génn àdduna dem barsàq di nga jóge barsàq jéggi siraat yàlla may na nga jéggi siraat nag ànd ak kóol te sëkk ci mbirum yomal xiyaam sell ci loxo yi la fay gàllankoor lépp muy xeeti malaayka yi bisu iid la yàlla na ko yàlla may ñeenteel ba al yawma lasi yadxulu fi il jannatu wa yu'minu min al jahimi huwa yawma iid ku ku ku ku ku génn barsàq di nga jaar siraat ku jaar siraat di nga wàcc fa ñuy jege dem àjjana mbaa sawara ñii nag nga bokk ci ñu topp ci sang bi seydinaa rasul sallallahu alayhi wa sallam ànd ak moom dugg àjjana wóor la ni mucc nga ci lepp luy lore bisu id la mu kala may juromel bi al yawma la yansuru fihi ila rabbih juromel moy ko duggal aljana do gis yalla ko dugg aljana fatte lepp bo duggee aljana and ak sang bi bisu ci aljana bis bi nga sa borom bis bo bisu hidla, la mu kala may salaa salaama laaj ni ko ne ko nonu gesso mo ne indakum gudik. rabbakum badr fi ci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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره الحسين يا محسر المسلمين هدينا الله سبحانه وتعالى وإياكم صراطا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين خير المخلوب عليهم من إبليس اللهين وشيطان الرجيم ومن اليهود والنصارى ومن كل شيء شرك وكفر ولا ضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين سورة بروم nee na yéen ñi nga xam ne aamanu dëggu na seen gëm yàlla irkaxoo sax leen ci rokoo was juddoo sax leen ci sujjóot loolu mooy julli saxoo leen julli julli du mën a am te rokoo amul julli du mën a am te sujjóot mooy taxoo leen julli njalbeenug islaam takkoo julli digg lislaam taqoo julli mujjug lislaam taqoo julli mu ni wax ba doo te ngeen sax ci jaamu rabbakum seen borom sax ci jaamu sa borom nag mooy lépp loo xam ne lu baax la ñu digal la ko defal soo mënee soo mënee soo mënul jéemal lépp luñ la tere bàyyil bu ko tëlee bàyyil bàyyi gaa gën mu ni waxooloo te ngeen tax ko xëy def lu baax nag lepp lu ni baxna na doxu bokk baax na sarxe baax na jégal kilifa baax na lu bax baxna na sax len ci ñu lu tax muy laxalaakum ndax te yeen kët tok li horo ngeen texe ëllëg yemal xiyaar ya yàlla seen yeen gaay xani amanu ne na seen gëm yalla la tabbi xoo xutwaate seytaane bu len déggal shaytan bu len top shaytan shaytan jubul amul lu jub koko top do meuna jub am lu jub muni ah waaw lu tax mu ne fa innaw naka moom seytaan yaxmuru ma ngay digle bil faxasaa ci lu ñaaw ndax moom dong la xam wal munkari ak lu yoon bañ loo xam ni soo ca nekk ku la ca fekk yedd la loolu la seytaane def lu rafetul loo xam ni ngërëm amu ca loolu la seytaane def waaye nag seytaane am na doole ñoo xam ni wala la fadlullaahi bu war a ngërëm su aleykum ci yéen mu dabaata leen seydina rasulullaahi sallallaahu alayhi wa bu doon nag loolu ah wa rahmatuhu ak matug yërmandeem maa saka du sell min kum ci yéen min ahadin ci kenn abadan faawa do waaye nag am kilifa gu lay jaayante naan la du foofu fii la taxaw ca yàlla may la yërmande nga am xol bu sell bu mën a dégloo loolu mooy taxa a mucc seytaane xeex ak yet ak lépp seytaane faale wu walakin la waaye borom bi kat yu sakkee mooy sellal man ya saa ku soob de ndax moo yónnee waaye moo moom jub ko jox nga am ko yàlla na ko gën a jox walla borom bi samun ajimatu dégg la alimun ajimatu xam la de yaa yoo àlla seen yéen gaa yi nga xam amano dëgg na seen gëm yàlla uskuro laaha uskuro nihmatalaay sax leen ci sant yàlla sant yàlla ci jaamu ko sant yàlla ci dimbalee ci xéewlu aleykum ci yéen de xéewal yi mu leen jox nga am xel mu rafet am gisin mu rafet am jëmm ju wér mën a wax lu baax mën a dox lu baax mën a wéetal yàlla mën a jaamu yàlla mën a dimbali lislaam mën a dimbali waa lislaam bu leen ci jóg de yaa yoo la seen yéen gaa yi xam ne amanoo dëggu na seen gëm tudd yàlla sikran ak lu bari de ñaar la ci sallallahu alayhi wax na ngeen jéggalu seen boroom man de danaa jéggalu bis bu ne juróom-ñaar fukki yoon muy benn lim mu delluwaat ne man de danaa jéggalu téeméer yoon muy ñaari lim waaye nag sikkiran kasiran mooy man maata wala saan rotun bi sikri lay daxalal jannat dëgg dëgg laab dëgg dëgg laab muy tudd yàlla boo nekk ci tudd yàlla yaa ngi ci laab boo ca génnee génn nga ci moo tax sikkiran kasiran wasabbihu te ngeen màggal ko bukratan jamono yi suba wa asirin ak jamono yooyu moo taxoo leen ko rek adduna su ak ngoon la yaay wàlla seen yéen gaa yi xam ne amanoo dëggu na seen gëm yàlla salloo jokk leen ali ci moom wa sallimoo te ngeen moom ci moom tasliman ci seen lépp de tasliman ci seen lépp salaatu ala nabi téere yi da cee bari lu ñu wax waaye imaamuna Maalik bi nga xam mooy sunu gën nee nañu Shamsu TV mooy suñu télé Shamsu TV mooy suñu télé dégg ko seetaan Shamsu TV mooy suñu télé aljana ay waay di ko bege waay ba aljana ana waa daara ji Shamsu TV la ñuy bege ba aljana ay ba aljana di ko bege waay aljana